ورضي الله عن شيخ التجاني ومن به توسل من قاس ومن داني وعن أبي الحسنين القطب ساخو علي خليفة الشيخ في سر وإعلان شروط الوضوء chartaay njàpp charta ak rukun muy ponk léeg-léeg jaxaseef ko ndax dafa am yu ñu niroo moo di ne ponk ak charte yépp suñ dikkut jaamu yàlla gi du baax du wér waaye am na lu leen wutale te li leen wutale farq jawhari la mooy ponk bu dikkut du baax bu yàlla gi du baax waaye ci biir jaamu yàlla gi la bokk chartan nag condition la pour jaamu yàlla gi wér wala mu war waaye bokkut ci biir jaamu yàlla gi ana luy misaal ci loolu bi darbil misaal yattadixu lmaqaal xam ngeen ne sujud ak rukuuc ci ponki julli lañ bokk suñ dikkut julli gi du baax waaye ci biir julli gi lañ bokk en même temps jàpp charte la ci julli mën a wér charte la ci julli mën a baax waaye bokkut ci julli kon charte moy loo xam ne su dikkut jaamu gi du baax waaye bokkut ci biir jëmmi jaamu gi ponk bu dikkut jaamu gi du baax waaye ci jëmmi jaamu gi la bokk chartaayi njàpp nag boroom xam-xam yi tudd nañ ci yu bari lenn ci ñoom takkale ko def ko ay xaaj xaaj yoo xam ne ñooy shurutu wujub ñooy tax jàpp war ak xaaj yoo xam ne ñooy churutu sixa ñooy tax jàpp wér ak xaaj yoo xam ne churutu sixatin wa wujubin maan sartaay wér lañ sartaay euh, war lañ churutu sixatin wa churutu wujubin euh, maan shurutul wujub mooy yoo xam ne suñ dajeexee njàpp war shurutu sixa mooy ñooy yi nga xam ne njàpp du wér féeg dikkuñ sharta bi njëkk ci shurutul wudu yi mooy lislaam nekk jullit boroom xam-xam yi nag wuutee ndax lislaam charta warla la du chartaay war chartaay wér la du chartaay wér ndax am na ñu ne ab yéeféer dagan na mu jàpp loolu mooy madhabul xanafiya am ñu ne déedéet njàppal xéeféer du wér loolu du njàpp rekk sax waaye jaamu yàlla yépp moo xam laab la moo xam julli la moo xam azaka la moo du wéree mukk ci ku newut jullit buur ne wa ma manaahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih dara terewut ñu nangu seen dundale lu dul ne dañoo weddi yàlla ko yonentam ndax jàpp war na bokk ci ab ji e, weddi yéeféer ndax jàpp war na ko loolu it masala xilaafiya la dafay dellu ci masala usuliya mooy halil kuffaaru muxaatabuuna bi furuci shariati ndax yéeféeri niñ leen xitaabee cosaani sharia noonu lañ leen xitaabee ci bànqaas ya ndax cosaani sharia muy usulu diin moo xam tawxid la ak gëm yàlla ku yonentam ak yonentam yi kooku boroom xam-xam yi jullit yépp d'accord ne yàlla xitaab na ci yéeféeri ndax yàlla dafa ne qul yaa ayyuhan inni rasulullahi ilaykum jamian kon ñëpp la nit ñi waxal hey nit yéen nit ñi man de bu joge ci yàlla jëm ci yéen ñëpp kon usulu diini moom dëppoo nañ ci ne yàlla xitaab na ci jullit yeeg yéeféer yi yëpp waaye ndax banqaas yi furuu muy lu mel ni njàpp ak woor ak julleeg ndax yooyu yàlla xitaab na yéeféer yi ñu def ko lenn ci xanafiyatu te loolu la abu hamid al isfirayini bokk ci shafiiyatu tànn eh, eh, maana ñoom liñ tànn mooy yàlla xitaabut leen ngeen baal ma yàlla xitaabul yéeféer ci banqaas yi ak lenn ci shafi'iyatu ñoom dañ ne yàlla usulu diin rek la xitaab yéeféeri waaye furuu shariati xitaabut leen ci waaye li ëpp ci borom xam-xam yi nañ ne nii leen yàlla xitaabee ci banxaasi diine ci uh, cosaani diine noonu la leen xitaabee ci banxaasi diine ni yàlla xitaabee yéeféeri ci cosaanu diine noonu la leen xitaabee ci bànqaasi diine ñi wax ne yàlla xitaabut leen ci bànqaasi diine seen dalil mooy xadis ja yonentu sallallahu alayhi wa sallam di waxee Muaad bam ko yónnee Yaman ne ko yaa ngi ñëwal ñoo xam ne ñooñ téere lañ soo leen ñëwalee foo leen dikkalee nang leen woo ci ñu seede ne yàllaay yàlla ak muhammad ay ndawal yàlla suñ nangoo nga waxleen leen ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli ci bés bu nekk buñ nangoo nga wax leen ne yàlla farataal na ci ñoom azaka ju ñuy jël ci woy woomal seen yi di ko delloo ci woy ñàkk seen yi suñ la toppee na nga wëttu tedd seen alal te nga moytu wëttandiku ñaani kuñ tooñ ndax dara nekkut digganteem ak yàlla benn kiiraay nekku ca ñu ne wajhul bi mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam wane ne ne yii nii muy waajibaat yi du war fiig ngëm amut moo tax mu ne ko nga woo buñ nangoo nga soog leen a sant nangam ak nangam ñu ne bu fekkoon ne yooyu war na ci lu ngëm du yonentu du leen yéexee seen tegtalu ñaareel ñu ne yéeféer duul ku yelloo jooxe jaamu yàlla yi ndax jooxe jaamu yàlla yi dafay tax borom yelloo fay àllaaxira te fayug àllaaxira mooy aljanna te xéeféer yàlla du ko fayee aljanna kon yelloowut jooxe jaamu yàlla yi ndax jaamu yàlla ñi nga xam ne buñ jëfee yeeyoo la te ñoom yeeyoowuñu ndax gëmuñu buñ jëfee it du leen jëriñ ñu ne mu ngi mel ni jaam buñ moom kenn du ko wax ne ko da ngay joxe asaka ndax moom ak lam yore yëpp ka ko moom ko moom kon kenn du ko xitaab ci waajibul maali waaye ñi ne nag kufaar yi muxaatabuuna bi furuci sharia ñi ne yéeféer yi xitaab nañ leen ci bànqaasi sharia seen tegta la gën a dëgër de te moo wérit nag mooy liñ sukkandiku ana luy seen tegtal bu ca njëkk ma salakakum fi saqara qaalu lam naku min al musallina walam naku nutcimu almiskina wa kunna naxuudu maa alxaayidin sama borom dana laaj eh, yéeféer yi wala malaaka yàlla yi danañ laaj yéeféer yi waay waay yelu leen dugal safara kenn ci yàlla boole musul ñu ne ñun de daawuñu julli daawuñu dundale daawuñu daawuñu dundale daawuñu jox miskin yi ñu dund fu nit ñi neewoon di fooy ña fa yàlla leeral fii ne bàyyi giñ bàyyi woon julli ak dundale kiy joxe azaka moo leen yóbbu safara yàlla it waxaat ne wa waylun lil mushrikina alladina laa yuutuuna mbugal ñeel na mushrikin yi lu tax duñ joxe azaka kon nekk giñ nekk yéeféer ak bàyyi giñ bàyyi joxe azaka wa waylul lil mushrikin ñoo ñooy ñaan alladina laa yutuuna zaka nekk giñ nekk yéeféer ak bàyyi giñ bàyyi joxe azaka tax na mbugal ñeel leen buur waxit ne walillahi ala nnaasi xajjul beyti man istataa ilayhi sabila ñu ne fii ñëpp la tudd tudd julli di rek yàlla daal waral na aj néegam bi nit ñi ñëpp ñu ne loolu nag jullit ak yéeféer a ci am ñaareelu tegtal bi ñu ne bi nga xamee ne yéeféer tere yiñ tere jullit dañ ko ko tere yiñ ko diggal tamit daf daf dugg ana luy loolu xeet wi yëpp dëppoo nañ ci ne ab yéeféer ci sharia su njaalowee dañ ko war a gëtan su sàccee dañ ko day war dogub loxoom même bu fekkee ne togguñ ko bàyyi maanaam su fekkoon ne togguñ ko bàyyi njaaloo ak bàyyi sàcc kon loolu du nekk maasiyatu te bu nekkuloon maasiyatu duñ ko mbugal ci jëf ja ñu a ah innama wajaba dhalika alayhim biltisamihim ahkam al islam ñu ne déeret luzumul ahkaami bi ilzami llahi tabaraka wa la bi iltizami alabidi dalika aha gis loo ne bi yàlla yéeféer yépp la wax ne nañ gëm yàlla même su fekkee ne lam yaltazimu shay'an min dalika te nag lu dagan kenn du ca gëtan nit su fekkoon ne njaaloo dafa nekk lu dagan kenn du leen ca gëtan gëtan ci lislaam du waree mukk ci lu dagan yi am ñu wax yeneen ñaari wax mooy yéeféer yi dañ leen xitaab ci yiñ tere waaye xitaabuñ leen ci yiñ digal ndax yiñ tere mën nañ koo bàyyi waaye yiñ digal ñoom mënuñ koo def ndax dafa am lu dox seen digganteeg moom mooy kéeféer te feeg gëmuñu duñ mën a julli wax ji riwaaya la gu jógee ci limaam Ahmad am ñu ne déeret yéeféer yi nga xam ne ñoom lañ xitaab ci ndigal ak tere ñooy ñi murtat waaye li wér mooy li jumhur wax ne yéeféer bi dañ ko xitaab ci yiñ digle ak ci yiñ tere ndax waral dara ci yow du wane ne soo ko defee mu wér buñ la waralee nga def dara firiwul ne def ga rek dana tax mu wér buñ la waralee nga def dara am lu tere mu wér dañuy seet loolu lan la su fekkee li tere mu wér ci côté chariatu la mooy charia daf la sant dara waaye amuloo kattanu def ko lottu nga wallis def ko charia daf koy rotal su fekkee na la la ko teree def nag ci yow la jógee du la ko rotal de da ngay bàkkaar waaye xitaab ba du yëgati ko te yéeféer bi li ko teree julli ci moom la jóge bu ko neexoon tey rek kéeféer ga dëñ mu nekk jullit kon xitaab ba war na ko bu ko defut bàkkaar ba war ko xitaab ba du yëgati ko misaalam loolu mooy kii naan sàngara dañ ko tere mu julli fii xamut li muy wax xatta taalamu ma taquluun laa taqrabu wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun su toogee nag di xaar ba mën a xam li muy wax pour soog a julli ci diggante ba waxtu wa weesu ndax dana bakar ah kay dana am bàkkaar donte dañ ko tere mu julli ci jamonoy màndiga lu tax muy am bàkkaar mooy la tax ñu tere ko julli ci moom la jógee jógeewut ci shariatu masala mi daa ko fekk ñu tàllal ko ci masail uh, usul ci kutub usul uh, te nag ñun ñu ngi ci furuuy moo tax duñ ci sori loolu kon nag charta bi njëkk ci charta yi njàpp wér mooy lislaam ab yéeféer su jàppee du wér euh, ñu taxaw foofu bu subaa ñu ñëw ak yéen ci chartaab ñaareel bi ak ya ca topp muy taklif wa ma ila dhalika euh, min shurutin hadha wa sallallahu ala sayidina wa ala wa sahbihi wa sallama